sëñ bi Abdoulaye Dione ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay Rewmi FM. yow yaay secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de la santé ak secteur social ci section hôpital Aristide Le Dantec euh, ñu déggoo leen bu yàggul dara ngeen di wax ci coowal hôpital gi ak tolluwaayam tey hôpital Le Dantec ci yan anam la nekk. ma dama lay sant di la gërëm d'abord ci dalal bi ngeen ma dalal. di rafetlu dalal bi ngeen la hôpital Aristide Le Dantec toll na ci foo xam ne euh, toll na ci foo xam ne situation boo xam ne maanaam. buñ ci jógul rek maanaam mën nañu wax ne ci ci daanu la jëm. waaw te buñ nee daanu nag defe naa ne ñun malade malade yi ak ñun ñoo ci gën a sonn moo tax ñuy artu état bi di ko xamal fi hopital bi toll. hôpital bi toll na ci situation boo xam ne maanaam liggéey fi liggéey fi sax day jafe parce que hôpital boo xam ne amul ndox hopital boo xam ne malade bi pour mu fay il faut mu def deux heures de temps hôpital boo xam ne tey day ñëw ñu ne ko analyse bi am na analyse bi amul. suba bu ñëwee ñu ne ko lii am na ñu ne ko lii amul hôpital boo xam ne boo balaa nga scanner ba dafa paan hôpital boo xam ne maanaam maanaam hôpital bi daal toll na ci ci situation boo xam ne daal buñ ci jóg bu ci hôpital bi bu ci état bi jógul daal gëm naa ne dina di ci ci suuf la jëm daal. ñu dégg ngeen di wax problème mu archivage mooy ci wàllub données yeeg loolu yëpp lan mooy solo si ak fu ngeen ci toll. waa xam nga xam nga comme ni ma la ko waxee rek. hôpital bi moom. mën nañu wax ne euh, données yi mën nañu wax ne euh, maanaam réseau informatique amuñu ko waaw parce que données yooyu yëpp comme ni lakk na yëpp dafa lakk waaw lépp dafa dafa lakk donc hôpital bi daal mën nañu wax ne dootul hôpital daal. Hmm. waaw mën nañu wax ne dootul hôpital maanaam maanaam lii tax ñu naan hôpital hôpital bi amatu ko waaw maanaam malaat bi nga xam ne bu ñëwee day nekk day day day nekk ci jàmm bu ñëwee rek ñu dalal ko mu dem fay ci jàmm. dem def analyse am ci jàmm dem def rajom ci jàmm hmm. dem xool docteur bi ci ci jàmm maanaam yoon boobu yooyu yoon boobu yëpp mu war a jaar yoon boobu ci boppam moo am problème moo am ay jafe-jafe léegi loolu yëpp lan moo ko waral ndax yorin gi la maanaam gestion bi waaw yorin gi la yorin gee waral yorin gi moo ko waral yorin gi moo baaxul yoriñ gi moo baaxul ko ko yor ak équipe bam ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ko mënul yor ñoom ñoo ko mënul yor. léegi li ciy ah. pexe jëlee ko fa wala. li ciy pexe mooy état bi ci boppam moom moo war a jël ay responsable bu ko jëlul nag ñun dinañ ko jël parce que ñun nag ay syndicaliste lañ. du hmm. ñu seetaan hôpital bi di di di nërmelu bu nërmeloo c'est les travailleurs qui vont euh, ñoom ñoo ci. ñoom ñoo ngeen koy jëlee lu mooy grève rek. ak ah, grève ak lu ne mu yoon man lu ñu yoon may rek ñu def ko du du grève rek lañ mën a def ah. li ñu mën a def bari na de. Hmm. waaw mën nañu def ay sitting mën nañu def lépp en vous appelant surtout la presse encore une fois nous comptons hmm. surtout la presse. waaw yéen yéen moom je pense que yéen am na rôle boo xam ne war ngeen ko mën a jouer ci ci secteur bi. Hmm. donc je lu tax monsieur Dione ngeen tamit euh, xaar ba li xew euh, ci hôpital bu Louga ba mu lëmbee dëkk bi ngeen doog a artu ci euh, situation bu Dantec. xam nga xam nga xaaruñu ba li xew Louga jóg am ñuy soog a jóg ñun yàgg nañoo jog wax na la ko fii def naa fi def nañ fi point de presse alerte état bi ci situation hôpital ci wàllu wàllu tabaxaat bi hôpital bi dañ ko war a tabaxaat màgget na alerte nañ état ci plateau technique bi maanaam rajo yeeg analyse yeeg yooyu yëpp wax nañ ko di déglu nag état bi boobu ba léegi nag dégguñu état bi réagir waaw ñun nag xaaratuñu ay wax ay jëf la ñuy xaar waaw mm-hmm. moo tax nag ñu ne moo tax nga ñu dégg ñu rek waaw moo tax nga dégg ñu fan yi dinañ di di di fan yi moom dinañ jël suñuy responsabilité mm-hmm. parce que tamit situation bi nag mënuñu ko seetaan ñun ay syndicaliste lañ waaw ngeen soobu ci ay fànn ngi nii ci grève boobu ak léegi ndax am ngeen retour am ngeen kilifa yi ñu wax ak yéen waaw grève bi nag moom c'est au niveau national waaw parce que ñëpp gis nañ santé santé ñëpp gis nañ euh, bi fi pandémie bi amee bi fi covid bi ñëpp gis nañ waaw gis nañ suñu taxawaay ci Covid bi def naa ne ñëpp seede nañ ko waaw état bi ci boppam président de la bu mu génnee fu mu dem ñu ne ko sa sa sa sa sa corps médical kenn mënu leen fay moom mu seede ko kon nag yàlla bi mu defee nag ñu gagné guerre boobu yàlla defal ñu ci ndam donc nag jot na nag ñun ñu poser suñu doléance suñuy problème suñuy problème nag dafa bari ah. problème dafa bari moo tax lool loolu nag moom moo waral grève rek ngeen dégguñu. parce que nag bu ñu demee ci wàllu ci wàllu ci ci wàllu grève boobu li ko waral lenn la dangay ngay boo xoolee secteur corps yëpp am nañ indemnité de logement ñun waa santé rek ñoo ko amoon. Mm-hmm. ak li ma la wax ne moom nañ daj ci Covid bi est-ce que xel nangu na ko. Mm-hmm. question de vie ou de mort la suñu bakken mënoon na ci loolu am na ñoo xam ne seen bakken rod na ci. am na ñoo xam ne ba léegi seen bakkan roñ te dañoo am njaboot bàyyi nañ fi seen njaboot dem nañ donc je pense que ñun waruñu woon taxaw fii sax di di di di di di di laaj suñu àq ak yelleef waa ñun ba ñu paree rek état bi moo ñu waroon a woo ne ñu nag léegi lan mooy seen problème mooy li ma la wax ci indemnité de logement boobu koor yëpp ko am ba mu des santé enseignants yi am nañ ko daanee bët ki dem ñu ngi laaj nee na ñoom li leen jox dafa tuuti ñu ne leen ñun sax amuñu ko. Mm-hmm. ñun santé sax amuñu indemnité de logement moo cher euh, risque bi prime de risque bi tu xam nga ñaata la jamono yi. ah ñaata la. cinquante mille francs mooy suñu prime de risque vous croyez que ça c'est normal ci koo xam ne yow da ngay dem retraite yóbbaale jàngoro bi yóbbaale risque boobu tey maa ngi nii boo may waaj dem retraite feebar bu ma demee damay yóbbaale feebar moo bu ma demee cinquante mille mooy sama prime de risque vous croyez que ça normal ah mon cinquante mille francs léegi nag euh, ci change yooyu ngeen di wax ca Dantec euh, ministre bi wax na ci démb ni kon dinañ ci farlo bu ko defee mu jeex bu jeexee tamit lan lay indi ci kon innovation ak coppite ci biir kër gi. population bi rek lay jariñ parce que ñun ñun ñun ñun ñun askan bi rek moo ñu fa bàyyi. ñun askan bi rek moo ñu tax a jóg ñoom ñoo ñuy fay encore une fois du ma tay di ko wax. Hmm. askan bi moo ñuy fay donc ñoom rek ñoo ñu fa bàyyi lépp lu ñuy kaas ngir ñoom la. Hmm. tey maa ngi la koy wax problème hôpital condition wax naa la ne askan bi dañuy toog deux heures de temps trois heures de temps pour pour fay rek fay damay jënd ticket cinq mille francs mon cher. Hmm. je peux rester trois heures de temps au niveau dehors avec le froid. ñun yooyu la ñuy donc yooyu yëpp bu ñu koy wax wax situation hôpital bi problème info informatique beeg chantier yooyu yëpp pour ñoom la. Hmm. pour askan bi rek la. hôpital boobu bu ñu ko tabaxaatee cadeau pour askan bi. parce que dañoo bëgg suñu condition de travail ñu améliorer ko ba ñu mën a taxaw askan bi mën nañ leen mën leen a faj. loolu rek mooy suñu yéene. Mhm. amuñu beneen yéene. léegi coow lii lëmbee dëkk bi mooy faatuk euh, soxna Astu mi nga xamante ne kon euh, ca maternité. Euh, hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga la ñàkkee bakkanam ñu bëri jàppee ni négligence la ba sax sax conclusion yi ministère de la santé fasal démb ñu jàpp ni kon ab faatu la bi nga xamante ne mënoon nañ koo moytu xalaat en tant que acteur de la santé. waaw en tant que acteur de la santé en tant que syndicaliste damay damay jaale njabootu soxna soosu ba pare di ko ñaanal ah, yàlla mi nga xam ne mooy yërmande suñu borom yëgal ko xaral ko àjjana. waaw mm. ah, ah, dañ koy ñaanal d'abord di ko di ko di di di naqarlu nag li xew keroog waaw mais comme ni ma la ko waxee rek lépp c'est l'état c'est le seul responsable waaw parce que day koor boo santé day koor boo xam ne day koor day day day day day koor boo xam ne du fowkaay c'est pas un jeu comme le personnel et personnel bi doyul waaw personnel bi tamit doyul lal yi doyul Ah, dara doyul ci secteur bi ci ko ci ci secteur bi. Mm. Ah, donc man état bi laay njëkk a condamné. mais tamit euh, ci kaw euh, astu soxna bi euh, newuñu gars yi doyuñu mais dañ ko ne rek rendez-vous am jotul te mu ngay yuuxu di jooy ñu bàyyi ko ci loolu tamit. ndax waroon nangu ni négligence am na foofu. xam nga xam nga moom laa lay wax. gis nga tey soxna soosu soxna soosu génn àdduna mooy li ma la wax rek. Mm. gis nga tey je dona donne un exemple dama lay jox exemple tey tey benn tey boo bu personnel bi doyul moo urgence yi bari urgence yi bari urgence yi bari tey bu personnel bi doyul urgence yi bari yow léegi nan ngay def. ah mais moom cas presque urgence la de. waaw non dama la bëgg a bu urgence yi xam nga foofu lépp urgence la. Mm-hmm. waaw xam nga foofu lépp urgence dama lay jox exemple jeune ne man man néew ma le personnel soignant n'est pas fautif de. Mm-hmm. dama lay jox li li nga xam ne moom la moom réalité bi nga xam ne moom la hôpitaux yi di dund comprendre mm-hmm. néew ma man néew ma sama personnel bi to euh, négligence amul de waxuma la loolu de mm-hmm. lay wax li nga xam ne moom la personnel bi di dundu mm-hmm. moom la ñuy daj ci hôpitaux yi sous effectif boobu laa lay souligner léegi nag quant à kaaw astu man li ma ciy wax c'est très personnel soignant ñëpp xam nañ seen njàmbaar xam nañ seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen pastef donc coow li mu jur yëpp jaru ko woon lu tax ma ne la jaru ko woon mais Covid baa ngi nii bërki demb rek Covid baa ngi nii guerre boobu kan moo ko gagné mais c'est le personnel soignant ñoom ñoo ko gagné bërki demb rek la yàggul pandémie bi sax jeexagul donc je pense que loolu kaawu asu warul mën a tax nag ñu jël personnel bi yëpp personnel santé bi bëgg leen mettre dans le même panier. man loolu laay condamné loolu laay naqarlu c'est de l'ingratitude waaw ah, le personnel soignant ku leen gërëmul sant leen waroo leen wax mais vie ñuy sauver chaque jour nag ñu ko wax. waaw mais teewul tamit ah, bu bu erreur amee monsieur Dione. ndax waaw non erreur corps boo dem en dehors de solidarité. non de solidarité man néew ma la bële yàppaay amul négligence dama ne la corps boo dem. am na ay brebis galeuses yow boo ñëw yow sa secteur yow am euh, euh, dans le journalisme amul ñoo xam ne euh, ram lu leen neex la ñuy def du ñàkk te dama koy nangu <laughs> voilà boo koor boo dem am na uh-huh. moo tax ma ne la lii jarul scandale mais autour médiatisation bi am autour de cette affaire laay na moom xam nga fi may waxee moom laay naqarlu daal uh-huh, uh-huh. mais koor boo dem yow foo dem am na lii waaw foo dem am na ci ñoo xam ne c'est des brebis galeuses ñoo xam ne dañoo dañoo maanaam dañoo juux ci koor bi rek bokkuñu ci. léegi ñu wax ci beneen ponk nga xamante ne dafa mel ni léegi ñor na bu baax kilifa yi mooy wàllub affectation yi. ba tax euh, ndajeb conseil des ministres bi weex njiitu réew mi euh, àdduna ci ci ndaje bi wees mu artu ci euh, ne dootuñu nangu loolu te ki ko def dañ lay teg daan lan moo waral ci secteur de la santé mu am sey naataango sëñ bi joon ñuy bañ a dugg ci yeneen gox yi ci réew mi. waa moo loolu nag moom day day laaj boo xam ne. ma tontu ci dina ma jafe. Hmm. waaw peut-être ñoom ñoo xam lan moo tax du ñu dem ci àll bi. mais li ma ci mën a wax daal lu yomb la. àll bi du fii yëpp. kuy liggéeyee Fongele mi Kunkaane nekk ci au bas fond du Sénégal de pense que kooku bu fay dem war nga ko jox ay ay ay jumtukaay yoo xam ne bu demee dina fa mën a nekk. Hmm. waaw man gis naa ne ñu nekk ci àll bi yëpp dañoo sonn. ah hmm. man je gis naa ne eh, les infirmiers ICP yi nekk ci àll bi yëpp dañoo sonn waaw ah, maîtresse sage-femme yi nekk ci àll bi ñoo xam ne dañuy bàyyi seen jëkkër fii nekk ci àll bi ah, ah di xeex ah ngir askan bi ñooñu dañ gis naa ñoom dañoo dañoo sonn donc je pense que état bi ci boppam moo war a di jéem mettre les moyens ci secteur bu mel ne santé santé c'est pas un jeu du fawkaay waaw hmm. état bi nag def ko politiser yàq na suñu secteur bi. Hmm. waaw hmm. yàq na ko ah. yàq na ko complètement. ndax li yëpp wàllu problème ngay yëpp. ay asso problème yi ngay wax ni yëpp lépp c' est le seul responsable moo yàq secteur bi. waaw moo ko foyee. ndax euh, wàllub euh, coow yi ngay wax ni yëpp ak kon yenn erreur yi ñàkk formation bi war tamit euh, nekku ci. ñàkk mi ngi parce que xam nga li tax ma ne la état bi yàq na suñu secteur bi. tey da ngay eh, foo dem y des écoles privées de formation école yoo xam ne qui ne respecte pas le le cahier de charge respecté wuñ ko foo dem école la moom laa lay wax léegi sant du fowukaay du secteur boo xam ne dangay ngay xëy xëy benn jour rek libéraliser ko. Hmm. comprendre nga xam ne ku ne ubbi c'est pas un jeu du fowukaay question de vie ou de mort la. Hmm. Hmm. donc état bi mooy li ma la c'est le seul responsable. mais je demal ENDS actuellement nga xool concours yi mais y' a pas de concours boo demee école boo xam ay cinq infirmiers ñoo fay nekk ñoom ñoo fay ñoom ñoo fay nekk vous croyez que ça c' est normal xam nga tabax ay hôpital baax na tabax ay hôpital fu ne nga tabax loolu baax na me formation boo amul formation bu baax qualité de formation bu baax doo am doo doo am ay fajkat yu baax. jaww yëpp loolu la l'état na l'état naa kaa ouvrir des concours ENDS ngi nii gis nga ko. nekk na ci école boo xam ne euh, maanaam maanaam léegi mu dee waaw léegi kon fu ñuy fal fan la ñi di jàngee mon cher hmm. la formation elle est essentielle hmm. elle est maanaam maanaam formation bi moo ma maanaam mën nañu wax ne sax mooy santé waaw santé ñaar yooyu la fagaru ak ak formation jeex na tànn. yow yaay secretaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de la santé ak action sociale section Aristide Le Dantec sëñ bi Abdoulaye Dione Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax. ñu ngi lay ziar man encore une fois man maa leen sant di leen gërëm ci dalal bi ngeen ma dalal. Hmm. leen sant di leen gërëm.